Euh, miraase ngoog ah, jàngoon ngeen ko ah leen di waxal mooy miraas lii rek la dafa am lu ñu dee hmm, ah, am la am lu ñu dee euh, mooy lu ñu xaaj rubo mooy bu ñu xaajaatee loola le am lu ñu dee sumun xaaj ñeente bi xaaj juróom benn bi xaaj am lu ñu dee mooy lu ñu xaaj ñett bi rek am na ñu dee sulusaani am na ñu dee sulus boo ko bëggee xam da ngay delloo ca tomb ga mooy xaba dajaza xaba hmm? ah dabaza xaba da baza ñii doon gis fa nekk mooy juróom ya hmm? ñii doon rubo ñaar lañu ñii doon sumu kenn lañu ñii doon sulusaani ñaar lañu ah kon ñu ngi dégg naka noonu rek waaw doon nag lii dana ko tere bokk ànd dee xam njëkk a dee dafay dàq miraas lu ñu doonante bu ñu xamoon kii moom mujj a dee dafay ànd ak waaye dund doon kii ñu dellu doon nuwaat waaye bu ñu dee gu ñu réere la xamuñ kan moo njëkk a dee ci ñoom ñaar te ñu waroon a doonante du ñu doonante kii jullit la kii yéeféer la du ñu doonante kii moo rey kii doonte teyu ah mun na doon ca alal ga waaye du mun ta doon ca ndàmpaay ga naka noonu doom boo ne du doomu yoon mooy ku juddu ci biir sëy dana doon yaayam waaye du doon ku ñu naan baayam hmm? loolu nag mos naa feex daaw dara am na ku ko yëngal lool tee ko di dingat rek tee ko di dingat ne man maa ne woon ñooñu bu ñu teewee ci miraas mën nañ leen jox waxan kay man maa ko waxoon dañoo bu ñuy def miraas bu miskin yi teewee bu ñu miraas ba pare moom jël dara may ci ñooñu ah ñoo xam ne waru ñoo donn te teewee nañu miraas sa bàjjen la mënta donn sa nijaay la mënta donn sa baay tëx la mënta donn ba ngeen doonne ba nga ne sabadoor bi am baay tëx nga jël ko ah, kaala gi sama bàjjen am jël ko comme doom ju góor bu fa nekkee doom ju góor dafay dàq ñu bëree bu dul baayam ak yaayam lu mel ne ay maam yu góor maam jigéen jigéenam dafay dàq ñëpp doom bu góor dafa am doole ci dono ah ne nag nañu may miskin anakal moo gën a nekk miskin ku ñëw àddina ñu ne amoo baay anakal moo gën a nekk kooku miskin xam ndax dégg nañu kàddu gi moo la gën a nekk miskin moo taxoon ma bu fekk ñëw ñu teew nañu mën nañ leen ci jox ndax ay miskin lañu kon dégg nañ kàddu bi dafa am ñu dul déggi wax waaye li ma wax mu ci gannaaw de ndax dama ko bind sax far benn yoon hmm? kon bi maa ngi noona le yàlla nee na kon nee na yastaftunaka loolu la de ñu ngi lay sàkkoo ubbee kul neel allahu yàlla day yuftiikum yàlla dina leen ubbee fil kalaalati ci yacceer yacceer mooy kan inni murun dem as cam xalaka dafa faatu dafa alku dafa dee laysa lahu déet di ko ñeel wala dun doom ah wala hu ñeel na ko uxtun ak jigéen bàyyi fi jabar waaye ba loolu bàyyi fi jëkkër hmm? te bàyyiwul doom bàyyiwul doomi doom waaye bàyyi na jigéenam falahaa ñeel na ko nisfu xaajam maa taraka lam bàyyi waxu moom yarisaa na ko doon in lam yakun ndem nekkul lahaa di ko ñeel wala dun doom wa in kaana ndem nekk nañ is na ni ñaari ñaari jigéen ñoo fi nekk wala ba ñett wala ba lu ko ëpp falahumaa def leen di ñeel ñoom ñaar sulusaani boo xaajee alal ji ñetti yoon ñaari ñaari dañ koy jël ñu maataraka ca la mu bàyyi wa in kaanu dem nekk nañ ixwaanan ah ay mbokk yu góor hijaaran wa nisaan ay góor ak jigéen nii la ñuy def góor ñaar jigéen benn fii it am na émission bu ma bu ma ci rajo bi l'islam et la femme ah l'islam et la femme ci rajo yi njëkk yi la RTS yal na fay leen baax la ñoom ñoo ngi gërëm ñi nga xam ne ñoo ñëw di toxal ci baal bi yal na yàlla fay leen muy rajo Dunia muy RTS muy Saloum FM ah, muy Sud FM muy suñu rajo bopp bi te mooy rajo bu Cheikh Cheikh al di al fayda yal na yàlla fay leen eh, yal na fayda mel yal na yal rajo bi mel noonu la yal na tasaaroo ba ñëpp jot ci fa ngeen bëgg a yegg yal na ngeen passé foofu yaa rabbi waaw xam nga de dama jigéen du benn la am jigéen ñaar la am lii nag moo andi woon coow bi jigéen amul benn waaye ñaar la am ni góor seetal jigéen dafa toog ci biir kër bi papaam mi nii yaayam mi nii am ku jóge ci àll bi am ku jóge ci àll bi daal di ñëw ne ko dama laa nopp dama laa bëgg nga ne jëndal ma oto jëndal ma lal jëndal ma télévision jëndal ma or jëndal ma nangam nangam may ma téeméeri junni mu dindi loolu yëpp xobeet xobeet xobeet daal la ko jox te sa papa nga ni di dund sa yaay nga ni di dund hmm? li nga laaj yëpp jox nañ la nga dem sëy kon am nga benn bis ba la papa faatoo bàyyi sa càmmiñ jël ñaar yow ñu jox la benn nga tollantee sa bële bés boo dee ba sa jëkkër dundati wala mënatoo yor sa bopp boo dikkee fekk sa càmmiñ mu yor ñaar benn bi mu jox njabootam benn bi mu jox la waaye nga jël ñaar mu jël ñaar nga dem lekk sa ñaar ñëw ne mu yoraat la loolu mënta nekk te ñun suñu société l'islam gis nga ko sa jigéen bu ñëwee ne dañ koo fase foog nga fat ko ci kër gi ah sa jigéen bu ñëwee ne jëkkëram dafa faatu dikkat ay doomam foog nga fat leen ci kër gi moo tax ñu ne miraas nañ jox góor ñaar jox jigéen benn jigéen bi benn la amoon na benn moo ko yóbbu mu sëy kon bu papam dee na jël ci benn mottali benn mbële kon dégg nañ kàddu gi ah, ah dafa ndax dafa am ay ay ay dafa am ay mbootaay yoo xam ne tubaab yi ñoo leen ngemb ñu dugg biir Afrique ñu jox ay oto dëkk boo dem ñu samp benn tableau ñun ñuy mbootaay sàngam ñu ngi yàq suñu xelu doom yi ñu ngi yàq suñu xelu jabar yi waaw ñu ngi yàq suñu xelu njaboot yi ah di andi ay loi lii bu leen ko def baaxu ci wér gu yaram lii bu leen ko def nañ yem ci seen réew ñun li ñu toppaloo suñu bopp ñun xam nañ ko yor nañ ko bu ñu bàyyi ak suñu saba nit ku ñuul musta gannaaw nit ku ñuul yàlla moo ko dëgëral nit ku ñuul yàlla moo def tooke ak danger ci yaramam li mun a muñ nit ku xonk mun koo muñ kon bi maa ngi na ngeen bàyyi seen xel ci association yi di dox ci dëkk yi organisme yi di dox ci biir euh, ci ëpp dañuy màbb suñu société bi kon bi maa ngi noonu le yàlla nee na euh, loolu euh, bu boobaa fali zakari ñeel na góor mislu kom xasilun sayeni cerab ñaari jigéen yu bayinullahu yàlla mi ngi biral dana biral lakum ñeel leen anta dillu moytu ngeen di sànku wallahu yàlla day alimun aji xam le bi kulli seen ci bépp mbir ah kon leer na kon saar boobu jeex na mooy suratul nisaa te jigéen ni lislaam fonkee jigéen dem ni bu tuddee ko saar lëmm mooy sooti nisaa dellu tuddee yoon mariama aw saar te kooku it jigéen la kon lislaam mos a tutul jigéen de kon na ngeen bàyyi xel ci mbiri am lu ma fi jaaral tuuti mu ngeen di miraas da di soppi góor ñëpp ñuy jigéen ci lay yombe buñ ñett góor la ah ak ñaari jigéen hmm? nga bañ a juum defal ñetti góor ñu ay jigéen kon muy juróom benn jigéen ak ñaari jigéen yële muy ñaata juróom ñetti jigéen dégg leen boo demee bay séddale ñetti góor a ngi ñaar jigéen a ngi nii ñoo war a séddoo bi defal góor ñëpp ñuy jigéen kon ñett góor ñi ñuy juróom benn jigéen ak ñaari jigéen yi muy juróom ñett boo ko séddalee ba kenn ku nekk am góor ñi nga daal di dello seen benn benn ci ñoom kon doo juum waaye boo bëggee demee ci anam gi ñu bëri dañuy jumbe daanu ci miraas dem yóbbaale bàkkaar de ak la def dix pour cent ci miraas na ngeen ko moytu bu ngeen mënee miraas te jublu ci yàlla na ngeen ko def rek man de sama wayjur di di nekk jamono sëriñ bi bu ma yónni woon ma dem miraas dafay ne dërëm bëgguma nga dugal ko ci kër gi fii mus naa dem miraas ñëw dañ ma ànd ci xaalis mu takk lool sëriñ bi ne yàlla moo taxoon ma yebal ko am na yàlla googu doy na ana lu ma wàññi waaye ana lu wàññi sëriñ si waaye dem di duufal ay facture lii fukk lay jar nga ne téeméer lay jar lii dërëm lay jar nga ne juróomi dërëm lay jar ñu daay bind loola muy alal gu bëri nga séddoo ñu jox la sa dix pour cent ñoom ñu bëgg a jaay loolu la ñu ne woon fukki dërëm la mënta am dërëm sax xam nga loolu musiba la dana am ñu miraas bay am ay yëkk bay am ay nag dëgg la ba ngay jàng kenn ci ñoom dugalul seen loxo sa njàng dëgg la njàng foog nga am njëriñam waaye miraas eh, ki dem dee na bàyyi alal ga ana yow kon xam naa sama wolof leerul waaye am na lu ma bëgg a wax mooy li eh, wërsëg xam nga li muy tekki sëg mooy fu ñuy suul doomi aadama wër mooy li mooy li ko wër wërsëg boo ko rek sa dee jegañ na gisoo borom alal ñoo gën a gàtt fan ah seetlu ngeen loolu foo gis ñu ne dund na téeméeri at ci kaw gi lay nekk fekk màgget la mi ngi gàddu ba léegi ay raton di dem ci tool yi waaye borom alal yi ngay dégg ay milliardaire ay multimilliardaire yi yàlla dafa leen di nattoo ay ay feebar yu métti dañuy gaaw a dee rek kon dégg ngeen kàddu gi kon eh, alal googu wërsëg la tudd wërsëg loo xam ne xas na wërsëg sëg mooy ay si matière boo amee alal bañ ne est-ce am na lu bari bu yeboo nga waajal sa waxtu sa reetul yal na yàlla dimbalañ yaa rabbi lu ñu tuddee wërsëg ana looy dem di ci xataroo ne nañ ma dox ci dix pour cent euh, waxuma ñeneen waaye yéen ñi toog di samay njaboot bu ngeen di miraas na ngeen di miraas te yàlla tax rek bu yeboo ngeen miraas ba pare dox seen tànk neen dem amu leen paase oto euh, man loolu laa leen digal sama baay loolu ma digaloon kon na ngeen wéy ci loolu